That's you shooting sign. démb benn débat bu amoon Ndumbela dama bëgg su dee régie pare na ñu tegal ma benn débat boo xamante ni mi ngi amoon ci diggante Fatou Abdou Ndiaye ak kii di Serigne Saliou Gueye foofa émission Ndumbelaan ci seen TV Serigne Saliou Gueye di éditorial si biir kër gi di wax xalaatam di wax penseem saa yu ko neexee kenn du ko dagg Fatou Abdou Ndiaye nekk journaliste ci biir kër googu moom it di yëkkati xalaatam di ko wax tey sëriñ Saliou Gueye sooy saaga Macky Sall ba suba du la dagg day tàccu di amplifier ah mom amna ci droit parce que xalaatam la est-ce que Serigne Saliou Gueye mënul bayil kenen xalaatam aussi mu wax lolu su dee vidéo bi pare na ngeen jox ma ko foofu au présidentiel bi ñu jëm. aussi moom moy wut euh, solution parce que ñom duñu dem. le plan B peut-être. le plan Z de kay parce que même B bi baaxu B bi baaxul. bi ah, baaxul Bassirou Diomaye baaxul bokk ci Ousmane Sonko doon def. Bassirou Diomaye baaxul ah, c'est-à-dire. expliquer lolu as ba Bassirou mënut a dem. ah expliquer. parce que parti bi nga xamantene moko bëgg investir dañ ko dissoudre. Ah, ah, ah mais parti bu ñu dissoudre nan nan la ñuy jëlee parti dissoudre ko ak motif yi nga xam ne moom la ñu évoqué pour motiver eh, dissolution eh, boobu parti boobu di investir nit ñu ne eh, non ci texte laa ko teg parti bu ñu dissoudre képp ku ci bokk tukkee ci parti boobu ah. ba un an munoo participer ci élection loolu ci kii bi la nekk ci code électoral bokk ban texte ko wax noo dama bëgg ngeen ma texte bi moo wax loolu électoral bi la nekk ban texte wax loolu ci article day faatu bàyyi leen di jaawale jaawalewu ma jaawalewu ma loolu ci code électoral bi loolu loolu grand sëriñ si code électoral bi la nekk dafa ndànk rek. yaa ngi dégg les gens waa léegi bàyyi nit ñi wax nag. waaw yow suñu waxee Ousmane Sonko rek yow nag doo mën a participer loolu mooy li bi wax moo tax ma ne la candidat indépendant nga mën a doon mais dafay fekk ne. au minimum six mois milité woo ci parti defoo ah activité ci benn parti ah oui c' est le code électoral qui le dit noonu su maa ko inventé waaw kon kay kon moo tax ma ne plan B bi baaxul léegi nañu xool beneen plan B kon yaakaar naa ni ñoo seetaanandoo vidéo boobu gis ngeen ban jàngat lañ ci am Zeyna si Serigne Saliou Gueye Serigne Saliou Gueye moom ñëpp xam nañ fu mu far te comme ni nga waxee rek sànq ñu ngi wax li ko arrangé da lay bàyyi librement nga exprimer wu mais booy wax ci li nga xamante ne arrangé wu ko ku ci mel ni ci président Macky Sall moom day bañ carrément te dem na ba nit yi jéppi nañ plateau bi dañoo mere ñiy def palaato bi te dem nañ ba seetaanatuñu palaato bi ndax Serigne Saliou Gueye mais tey lan lañ fa mën a jàng Zeyna que dictature bi Diégui Diop doon wax Serigne Saliou Gueye moo feeñ fii moom la woon pensée unique bi moo feeñ fii liberté d'expression zéro démocratie zéro Serigne Saliou Gueye éditorial tous les vendredis a un petit plateau bi. Mhm. tout ce qui arrange Ousmane Sonko Serigne Saliou Gueye défend. d'accord tout ce que Macky Sall fait c'est pas bon est-ce que nit mën na nekk ci àdduna ba lépp lu mu def dara baaxu ci justice bi baaxul gestion bi baaxul pétrole bi baaxul jaay doole lañ fi nekkee Ousmane Sonko taxaw def fi appel à l'insurrection Serigne Saliou Gueye teg ci bëtam. Mhm. Amna na sañ-sañ ne moom du ci wax nangul nañ ko ko Fatou Abdou Ndiaye gis ni que. li fi Ousmane Sonko teg 2021 ba 2023 ñëpp a ngi ci teg seen bët te muy ay vidéo yu leer nañ mhm. sëñ Saliou Guèye neen du ma la bàyyi nga wax mu indi dictature intellectuelle commencé ko fël non li nga wax fan nga ko teg mais faatu Abdou Ndiaye su ko neexee nag fi mu tudd day faatu Ndiaye su ko neexee mu ne Ousmane Sonko mënta nekk candidat plan B Bassirou Diomaye fay ba plan Z mënta nekk candidat mu ne ko ndax lan mu ne ko parti biñu tonkon mom lañu la ñu dissoudre moo ko Serigne Saliou gay xamné li day Fatou Ndiaye di wax deug la mais ni koy naan ban texte moko wax ak nangam mais L57 moko wax tënku ci code euh, institut euh, constitution Sénégal L57 moko wax dafa jar nga am benn haine ak benn hargne bëkk indi ci plateau bi en plus c'est pas toi le modérateur du plateau le modérateur elle s'appelle Néné Aïcha n'est pas à toi de couper les gens. Et pourtant, on lui laisse couper les gens à chaque fois que ça ne l'arrange pas. Euh, responsabilité présentatrice. Liberté d'expression, mingi commencé. yow fi sa xalaat jeexee Fofu la xalaatu Zeyna commencé. Mhm. kon lu tax Serigne salif Gueye beug ñu nangul ko mom ay xalaatam yi muy tek ci plateau bi te dara du ci deug A ba Z lu manipulation ak lo xamanteni ni safano safaanoog wax deug moko tek ci plateau parce que ñun ñep dañoo jang teunku ci lenn qu'il est chroniqueur qu'il est éditorialiste ça ne nous concerne pas ce qui nous concerne c'est tenir un langage de vérité au Sénégalais et sortir cette haine qui se renferme sur toi Serigne Saliou Gueye moy nit bo xamanteni suy wax dang koy jang en communication tu sais que cette personne là est fâchée cette personne-là a la haine dans la cœur mais Serigne Saliou lan Macky Sall def gouvernement bi def ba mënul wala ba taxaw ak askanam Fatou Fatou ko bu wax li bu wax parce que journaliste de petit pour que Serigne ne respecte pas les invités et du respecte sa conseiller Djigui job n'a la ko tu supportes pas les femmes te loolu la wonee fii. il doit respecter les femmes. ku la séntu ci gaalu xaj bu mu la ci fekk Serigne Saliou Gueye ku ko doon rëbbi da ngay teg sa grillage booyal sa fourne teg ko xam ne soo eggee da nga koy jàpp ñëw saaf lekk ba mu jeex. parce que je crois que lii suñ koy gis ci ay plateau c'est pas que quelque chose boo xamante ni ñu ngi instruire nit ñi benn affaire te li ma ci gën a métti suñ ko daggee mu ne ma on est dans un débat si c'est quelqu'un qui dit dit bien sûr Ousmane Sonko il n'a pas fait ceci il est là là là là Serigne Saliou Gueye il est comme ça. Quand il parle de Ousmane Sonko, non, faut que tu aies un non, tu n'as pas dit ça, mon je suis Mais Salut Gay, descends sur terre. Tu n'es pas supérieur à tout le monde. Tu n'es pas le meilleur journaliste. Tu as été un enseignant. Ni le journaliste Aujourd'hui, que tu es chroniqueur ou éditorial, il n'y a aucune différence. L'important, ce qui compte, c'est d'avoir des pensées et des idées. C'est positif envers qui le peuple sénégalais et non pas envers Macky Sall ni envers Ousmane Sonko. Ce n'est que des politiciens qui sont là en quête de pouvoir. Après, si nous avons un mandat, nous mm-hmm. avons Soyons honnêtes et réalistes. Regarde le quand il parle et tu sens que c'est la haine cette haine-là ne doit pas assouvrir le cœur du peuple sénégalais je crois que le plateau de Ndoumbelane aujourd'hui fait partie des pires plateaux yo xamanteni tay honoré wul askanu Sénégal xuloo mo fa am téesante ba débat bi di jé xar-xarte ay débat personnel am lu fa jàngat lu dul xeex bërki débat diggante Moussa Niang ak ki nga xamanteni mo représenter APR c'était très ridicule ay magum jëm taxaw ci diggu plateau naan da nga reew ak sa patron yebu man nangam sangam soo ma ko waxtee nga xam mais y a la jeunesse qui vous regarde respectez au minimum le peuple sénégalais bi taal seen télé di leen ñu ngeen yabaatee da ngeen xamali da ngeen yaradiku yaradiku weesuwul ñi teg leen ci plateau aduna di leen seetaan ngeen war joxe respect ñi taxaw di leen seetaan mais vous ne donnez pas ce respect aux gens de grâce nañu dellu soit Fatou ab Ndeye Fatou Ndiaye a défendu très bien ses propos man nag damay jaawle Fatou Abdou Ndiaye Ndeye Fatou Ndiaye toujours c'est le contraire sotti ceeg def si la <laughs> Ndeye Fatou Ndiaye dafa nekk ci ay défense am journaliste dafa toog ci plateau pour wax xalaatam Sëriñ Saliou nga war a wax sa xalaat ni Ndeye Fatou ne pat déglu la ba nga wax sa xalaat su Ndeye Fatou di wax tëjal sa gémmiñ nga ne pat le Sénégal réclame que nga tëj sa làmmiñ su keneen di wax <laughs> Sëriñ Saliou géey dama la koy eggee sénégalais yi ne suñ la waxee kenn du la dagg Tu ma samba di wax tëjal sa làmmiñ ba mu pare nga yëkkati sa làmmiñ wax si nga ne li nga wax d'accord ma ci lii ak lii lii laa fiy teg lii laa loolu xaar ci yow mais quand même tu commences à polier l'atmosphère du Sénégal on aime très bien ce plateau on aime très bien Néné Aïcha mais Serigne Salou Gueye fekk on déteste Ndoumbelane Serigne Salou Gueye fait on mm-hmm. <coughs> excusez-moi Serigne Salou Gueye fekk on déteste lii di Sen TV mm-hmm. Gueye l'original on l'a envoyé sur le plateau mu bokk ci Bougane Gueye Dany gëm sa bopp ngay préparer sa investiture yor sa 24 points gay l'original a pris 10 minutes pour parler de Ousmane Sonko et son candidat lui et son candidat sa yoon où ci Ousmane Sonko lañ ko côté, lañ ko tegul toppatool sa candidat toppatool Bougane top toppatool sa 24 points on dirait que da ngeen nekk ci ben lan manam draguer li nga xamante moy Ousmane Sonko c'est pas ça qu'on prend un pays d'où nii la jëlé pouvoir man parfois quand je le suis dama né mais attends qu'il il est jeune je le respecte mais na génn ci Ousmane Sonko nañu bàyyi lecture de pensée bi leen di jox défendre leen sen projet ni Ousmane Sonko bëgg a défendre projet am c' pas à vous de dire Ousmane Sonko lañ ko tek yoon la wala du yoon sa candidat ngi ni Bougane Gueye Dany chaque jour mu yëkëti ay kàddu wax ko ci Macky Sall te kenn téyew ko Bougane Gueye Dany solul dalam dem suite boti Bougane Gueye jëlul téléphone am daal di accuser ki nga xamanteni ni mooy Mame kon Gueye l'original Ousmane Sonko limu def sa candidat su ko defoon mi ci kasso bi. Arrêtez de défendre l'indéfendable. Ousmane Sonko est indéfendable au Sénégal. Mhm. Qui veut défendre Ousmane Sonko au Sénégal de mars 2021 à juin 2023 Tu es un hypocrite, tu n'aimes pas le Sénégal. Amoul Ben Yon bu ñu Ousmane Sonko au Sénégal Ousmane Sonko Mo jaay l'état état du Sénégal jaay la république du Sénégal république du Nermel Koudal de ce n'est ni Macky ce n'est ni son premier ministre ce n'est ni son ministre de l'intérieur ce n'est ni son ministre de la justice

nee na ma foofu lañ doon nekk di la seetaan Ousmane Sonko moo tax ma dugg ci kaso bi mais Tange est-ce que xam nga ni yee nga jeunes yu bëri nee na man kenn dootuma jàppati ngir Ousmane Sonko. écouteur am la yor. macha allah nee na ma non Tange fit bi nga am di wax dëgg su ma nee woon fit bi nga am rek du ma mais fit bi nga am di wax dëgg. moom la journaliste yu bëre manqué. effectivement nee na ma def na un mois vingt jours ci kaso bi temps yii lañ ko libéré Ousmane Sonko moo tax ñu jàpp ko. nee na ma chambre 37 dañ doon toog di la seetaan ñi nekk chambre 37 su dee ñi ngi seetaan émission bi danañ xam kan laay wax

di ma menacer téléphone tey ñooñu lay dajal ñoom ñooy doon samay garde corps ñooy sama xarit ñoom ñoo may soutenir suñu ma fekkee maam dara sax di ko yëkkati ñoom ñoo koy yëkkati te ci ginnaaw Ousmane Sonko la ñu nekkoon donc je me dis que le combat que j'ai mené pour ramener le Sénégal dans la vérité pour éclaircir la lumière dama respecte lii sama rôle journaliste média da ngay informer juste et vrai ni ko Youssou Ndour waxee journaliste warul par par long mhm. askan bi moo la war a ñor la waaye dee leen wax dëgg te bàyyi li ngeen di par parloo bàyyi xaalis yi ñu leen di yónnee wéy day jeex. Mhm. day jeex sa askan da am ak moom un contrat kon toujours damay jàpp ni ko bi ma nekk maa ngi ciy am victoire maa ngi am ndam barki bu nit dafa taxaw mu ne ma yéen ñii balaa Macky Sall di jógee Sénégal daf leen war a nommé ordre du mérite et du lion ma ne ko lu tax mu ne ma da ngeen sauver Sénégal mu ne ma yow Tange Tandian yow Bah Diakhaté yow Mati Trois Pommes. yow Cheikh Yérim Seck yow Madiambal Diagne yow Moustapha Diakhaté mhm. Macky Sall daf leen amal njukkal sénégalais yi amal leen njukkal effectivement loolu rek ça me suffit pour avoir une victoire que di top ci Ben Ousmane Sonko ëllëg su nekké président moy jox nangam sangam je veux parler pour mon peuple et cette vérité là je le détiens uniquement pour le remettre ak ki nga xamanteni mo tax tay mo tok ci plateau bi di wax di yàlla subhanahu wa taala mom mi jël deug samp ko mune li moy mooy njëkk te mooy mujj lépp loo xamante dafa safaanoog deug bës bo ci duggé tout tard dang koy gis kon Sénégal ngalawaay la presse sénégalaise dañuy waxtaan te wax deug mo ñu ñor. Mm-hmm. je crois que nak dafa jot tay sénégalais xam bu baaxa baax fa lañuy tek sen tank ak kan lañuy déglu et suivre les gens qui xamante il les amène vers le droit chemin là où l'émission passe da ngay gis ki nga xamante ne nagu Ousmane Sonko la xaram la lan lay njëkk benn argument la saaga jóge fi nangam sangam Doul ngay def feneen Ousmane Sonko focus 2024 nangam nax sa bopp ngay def. Hmm. man dama lay indi ci problème avec la personne de Ousmane Sonko. ci hmm, a toujours te ci biir wax lan la ma wax ne ma Tange amoo problème ak Ousmane Sonko moom ci boppam ki ma wax lan la ma segal mu ne ma billaay wallaay dem jébbalu ci Ousmane Sonko man parce que dama ko tegoon wàlliw. mais néw dama tok ba ci bir xamné Ousmane Sonko du walliw nit kese la te fay juum erreur bi mu ñëk def moy suite boti bu mu dem te Ousmane Sonko jaral nako bu tëdd kaso 1 mois 20 jours mu ne ma sama mam momo mu ne ko diw mu ne ma naam mu ne Ousmane Sonko du walliw du khutba zaman nit kese la mu tok ba ci bir xol mu war ma photom bu mu taxawé djébul ci Serigne Abdou Serigne Ousmane Sonko te Ousmane Sonko mo tax te tidiane la Serigne Abdou Ousmane Serigne Ousmane Sonko mo tax mu dem talal loxob djébul kooku nee Ousmane Sonko dootul tax ñu japp ko nee lepp luñ may japp té du tax Ousmane Sonko doon kon cette jeunesse là dama bëgg ngeen réveillé wu yeewu. Mhm. Ousmane Sonko vous a trompé du début à la fin. mais vous avez la chance de vous retrouver très tôt parce que jëlul nguur gi. du mhm. doon candidat su ko doonoon yéen lay njëkk jaay seen ressource naturelle jaay na ko. gën a métti bi kon nañu dellu soit suñu xel xam ne que Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar.